te man maa ngi am gàmm si par fois léegi lan laa doon wax mooy sëñ Hadi nee na ci jaan bi bul xotti war may diine gars yi lan mooy xotti war may diine dëkk ci yaraax ji ci koñ bii jumaa ji nekk bii xadara mooy tax nga jullee timis ci jumaa ji muy aju te xadara bay nekk xotti war may jullee sa kër timis fekk jumaa ji dañuy wasifa ngoon nga jullee sa kër timis ngàbb sa kurus ñëw wasifaa ci jumaa ji xotti war may sharia ñëw xadara ñu xadara ba pare nga ñibbi dem jullee liggéey te mënoon a ñëw romb jumaa yi romb jàkka yi doo fa dem daayira bu ñu woote nga xadara bu ñu wootee ba risaa toll nga bokk ca taay wallaay أو يبغون حكم الجان والله نعم يؤدون الأوامر عفلة والله يرون كل الخير في العدوان لأنهم نين أخذوا ولكن لا لخلق تاهر وأتوا ولكن لا لقلب خان سير جندو تاريخ بموي إن القيادة دعوهم كزيادة والله الحمل من معنى من النقشان والله jërëjëf dégg nga sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum li mu wax dana gaa yi maanaam benn marque la marketing lañ ciy def fu baax a rafete nga bañ fu bone carré rafete nga jënd Louis Ahmed Ahmed Sène jënd marakis marocain tagal ku ñu wootee nga def boo ko gisee bu jëflanteeg yow rek nga ne acam sëñ Haadi nag ne bul xotti woon mooy diine bul tilimal bu bum sharia loolu xewul ci tijjaat gars yi ñii tilimal bu bum sharia te fay xabi ñaata la kon nag boo fi jógee yow ndaw li bàyyil xel ne sharia bi moo boobu tariqa bi tariqa dafa war a dëppoog sharia jamono bu sharia waxee tariqa wax ñu juuyoo tegal nee tariqa ànd sharia ndax mooy ambulance nga kon bu ko defee mbokk yi imam sëñ bay man sama temps jeex na oustaz jigéen ñu ñaawul ni waaw dañ koy def xanaa li ci des dañ koy def ci frigidaire dana doon incha allah jëm ca kanam kon nag bu ko defee imam sëñ Mbaye waykat yi waa daayira bi jigéen ñu ñaawul ni responsable politique yeeg ñëpp rek ak waa quartier bi kon ñu yow ko foofu beneen yoon di leen wax ne salaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Mansour fa tabarakallahu li dañu séntu woon ci yow xëy na dafa gàtt dafa gàtt loolu waaye alhamdulilah nekk na leçon boo xam ne euh, mun nañ ko yóbbaale bi ci des Mansour nga baal ma nag xam nga da nga doon wax waxda benno nga jéggal ma nag dafa am lu ma bëgg wax rek yéen tijaan yi ak ñi yéen murit yi mii doon wax li gars yi di wax il est bien bien placé pour mu wax ko danaa wax lu tax Mansour Gabal ma moom mi maamam mooy Serigne Lamine Fall ay waajuram ay murit lañu baayu Lamine Fall mooy maamam ki jur baayam loolu laa bëggoon léegi bennoo bi pour li ko sëñ mu lise rek la imam bëgg a wax maanaam maam Lamine Fall bi muy wax di ko jur mooy Maxtaar Aada mais Maxtaar Aada dafa teel a faat bàyyi bu ndaw lañ ko joxoon mooy Basila Fall Basila Fall mi ngi dëkkoon Béyti Fall arrondissement Ndar département Mbacké région de Diourbel commune de Ngaye actuellement Béyti Fall googu nag مام شيخ احمد بامبا دانا فا نيو دا فا داج غور بما قاضي ما جاخا تكال دا فا داج لغي نك مام لامين كوم بابام دا فا مام سي لا فال مي بايام بو ناو يوي كو تي دوك تي مام شيخ احمد بامبا بيم ما تي دال جانغ موم مام لامين لاكو بايام بو ناو جيل ييب كوم مام شيخ احمد بامبا mu jox ko talibeen bu ñuy wax alimati kan kuru màkke la ga koor moo ko jàngal ba ci li ilaas ñu dogal dal ko ci gëlee muur mu bindal ko leetal boole ko ndaw ngir mu yëpp ko maam Cheikh Hadji Malick maam Lamine ñu ngi dajeeg maam Cheikh Hadji Malick xombal ca la Maodo bindee annaasu qaydun liman amal ilaah fala tamil ilayhim nadimu naasi fil walayhi ay bu ko sëriñ si xamoon Maodo dafa yegg si xombal wàcc ci gaar bi jëm ci kër gi diggante bi jege lool mu ànd góor gi Amadou Mbaye Maodo bàyyi El Hadj Mansour Mbaye bu doxee ñaari baat rek ñu gàttal ko si si mu waroon a def ci yoon wi dix mille mu def ci trente mille bi mu àggee ca kër ga def ne góor gi Amadou Mbaye mu ne am ne ko nit ñi boo dee bëreet ba nga dem ci yàlla dañ lay tax bu doon nga xëy tëju di recevoir gars yi julli ji ngay recevoir gars yi jëm dëj ngay recevoir gars yi dem sarax ngay recevoir gars yi seet ku feebar ngay recevoir ba tëddu jot boo tëddee il faut que da nga delloo ñu ne dafa tëddu da ngay naaje man ñi daawuñ tënnu ngir nopp dañu daan tënnu ngir jaamu yàlla loolu il faut jeunesse bi xam ko tënnu ngir liir tënnu ngir sikar tënnu ngir jàng alquran tënnu ngir am sa bopp moo tax Maodo nee na ku bëgg a dem aljanna ñeenti yi danga ko bàyyi xel ñeme xiif du loolu loolu lekk ko de léeg-léeg ngay bew mooy li ngeen di tuddee retrait spirituel bew léeg-léeg ay foo tollu la ci nit ñi léeg-léeg ngay noppi rawatina réseaux sociaux yi surtout lu amul njariñ moo ko rey rëyu ko kaa bi nii la demee demewul nii Barcelone Real nangam ak nangam Aliou Cissé yi la waroon a teg ni mu tege du nii moo tax ñu ñàkk attaquant bi lan moo tax mu génnee Sadio Mané fi mu ko génnee baaxul loolu moom domaine Serigne Ousmane dama ko koy bàyyee te dëgg cee wax lu yem nga dem doxi sa soxla bayi bëgg ci nit ñi nelaw nga jóg julli maam Lamine boobu nag di ko di maam Cheikh Al Hadj Malick doxee soxlaam ci xombal ba àggal la ànd ak moom indi ko ci waaw boole ko moom maam Lamine ak maam Khalifa muy sëñ Baaru Kasi ñoom ñaar la boole jox bay El Hadj Mor Koudia si bay El Hadj Mor Koudia si maam Amadou Sy mi ko jur ak maam Ousmane mi jur Cheikh Al Hadj ñoo bokk benn ndey ak benn baay bay El Hadj Mor Koudia si moo jàngal maam Lamine moom ak sëñ Baaru Kasi ñoo taree doo alxuraan maam Lamine bi mu mokkale bi Cheikh Hadji Malick ne comme dañ la fi indi woon pour nga jàng mokkal nga kaay nga dellu ci sama borom Tuubaa mu ñëw mu ñëw Jurbel maam Cheikh Ahmad Bamba di ko déglu ba yegsi ci suratu Yusuf fala ta'manna xam nga fala am na trois lectures ñetti njàng yi am na ñuy jàng fala ta'manna am ñuy jàng fala ta'manunna am ñuy jàng fala ta'man nga xam ne mooy Ismaël koor googu maam Lamine la maam Cheikh Ahmad Bamba ne ko jiiteel naa fi sëñ alaaji moo ne ma sa maam Lamine moo ne ma bi ma taree ba yeggal dañ ma tegal yére yoo xam ne dafa tolloog man ma jël ci benn mbubb sëñ Tuubaa daa ne ki bu cere braaye di ko jox di yëkkati kaasu attaay di ko jox xam naa loolu bëggoon wax ñun nga xam ne loolu yooyu ciwuñu mais pour moo tax fi may daaneele mooy maam Maharam Mbàkke dafa bëri woon ay taal mais bokkoon na ci Ahmad Farimata Cerno Farimata Ibra Faa Awa Ñang am na ñuy wax Ibra Farimata waaye Ibra Faa Awa Ñang léegi ki ma ci Farimata moo jur ngañ ñang mu jur ngañ xali Mbàkke ñang mu jur maam Sase mu jur Alaaji waaye boo ñëwee ci Ibra Faa Awa Ñang ñoom ñett muy maam Cheikh Alxaaji Maam radiyallaahu anhu ak maam Cheikh Ahmad Bamba ñoo bokk benn maam muy maam Maaram Maaram nag dàkkantal la turam dëgg mooy Mouhamadul Xayri li ko teewoon a ñëw Mbàkke daf ne ma du tuxu moo tax mu yebal fi ab taawam mu sanc si Mbàkke ki kenn ci ay doomam mu sanc si Mbàkke kon bu ko defee loolu la bu ñu koy wax mooy pour wane ne ñëpp benn la rawatina bi lislaam ñëwee nag ñu bokk ko bokkati dëkk bokkati loolu lépp loolu xam naa moom la imam bëggoon a jàllale kon nag mooy noonu waqsimoo qala mawlaana du teqalikoo teqalikoo fu mu fi mu jëm nga moo di fashal amay si maalim nee na ñëpp def nii nee na tàggoo ba leen ko tey ndax lii la téere bi wax kamaatana bii haadi li xayri subul ñëw leen ñu nekk ay jaamu dëggu dëggu te dëpp yàlla bu baax xaw la wa kulla amal samaam nee na su lii amee réew mi naa te jaddadoo du fi am guddi na nee na tuubal ci waawoon ña seen ak jaamal ak cene ba kasaak laa yéen wañaasaan kum ci rek teeral jërë ngeen jëf barakallah kon Alaaji Mansour ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla dam na yàlla yokk xam-xam bi leeral ko yàlla defal la qabuul istiyaaba di jaay subi sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg yàlla bëgg nañu kontaan nañu waaw barewul barewul waaye kontaan nañu waaye incha allah beneen yoon danañ ko organiser ba mu gën a yaatu incha allah yàlla nañu yàlla may fekkee déwén yu bëri kon ne ñu ngi koy libéré mu dem ci yeneen yeneen yitte tabaraka allah salaamaaleykum jërëjëf Serigne Bosso waxtaan nañ bu baax. mu am lu ci tënk su paree. mu jox oustaz Alioune Wade moom it benn cinq minutes incha allah Omar Tine mu ñëw def remerciement yi suñu ci paree nag am na ay tableau yoo xam ni daayira bi ñoo ko defaroon ah jagleel ko suñu pare bi ak suñu marraine bi ak suñu ñaari waajur yi ñu doon rendre hommage incha allah ñu jox leen ko suñu ci pare incha allah Ahmed Tafsir Dramé am na ay décoration yu fi bëgg a joxe war ko jox. benn délégué de quartier benn imam Omar Diallo benn imam Mouniru Ñeng waaye benn man mii taxaw di wax ak yéen ah oh, loolu nag su ko defee du guléet yàgg na ko def waaw ah, yàlla yàlla teraanga saxal teraanga ci loxoom ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee bu kàddu yooyu eggee Omar te remercier mbokk yi ñu jàng burdu bi incha allah ñaan ba déwén incha allah. bi waajal gane àdduna Seydina Muhammad dañu sant yàlla bu baax parce que amoon na ay jamono dama koy faral di wax ñun dañu daan jóge fii dem ba di teewe burdu foofu di jóge fii di dem ba di teewe burdu foofu léegi mu def ko suñu kon ñu koy sant bu baax jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah di ñaanal ñëpp nag yal na ñu yàlla defal jàmm yal na yàlla doole sutura yal na yàlla doole xéewal gis nañu ñëpp ñu kontaan na ci ñoom yal na yàlla mottali xam naa da ngeen bëgg mu wax i ñaari côté mooy benn bi dina gën a ba léegi bi da ngeen di envoyé benn lettre da ne vous voulez profiter de cet instant pour faire un vibrant hommage à l'endroit de monsieur Mouafa. ki ngay rendre hommage nag war nga koo xam seen maam la bu seen bàyyi parce que ñu mu fi jël noonu te yëpp seen bàyyi la woon nekk seen dijaay. parce que bokkuñu woon génération góor gi Mor Fall turam dëgg mooy Momar Fall mu tout juddoo Tëngéej ci diggante Kajoor ak Lebu yi mu ngi juddu tout li ma gën a marqué ci moom ci date yi yàlla dogal na mi ngi gën a àdduna le 5 février 1890 à Louga. yàlla dogal na mi ngi génn àdduna le 4 février 1966 ñu denc ko le 5 février bés bi mu gane woon àdduna ci la duggaat ci biir suuf mu nekkoon nag góor gu am jaar-jaar góor gu am taxawaay li ma mën a wax rek ci dundam. te fas yéene ma cee wax nag lu dul dëgg parce que nag li ma jur nag warul tax may wax loo xam ne lii nekkoon ci moom bokk bugguma bokk ci ñi nga xam ne isa xasada kalal ak lu ma jege jege nekkoon na góor boo xam ne bi leen góor bu amoon maanaam yàlla da ko mayoon kattan maanaam bu ma bëggee misaal nekkul woon njool mais gàttul woon dafa diggu doomu te wax na ma jële naa ci moom jële ci sama bàjjen jogob ndaw ci mu bokkal benn ndey yàlla da ko mayoon cër da ko mayoon doole dégg naa ci làmmiñam mu ne cent kilo ceeb ba cent kilo ceeb di am ba nga xam ne euh, du du manqué dara kenn du ko yëg moo koy xil bopp ñu moo koy moo ko yëg bon kooku am na kàttan mu am ay jaar-jaar nag ci wàllu ndawam parce que am na format puisque bu dee ci wàllu diine la mu wax ne diw moo ko jàngal woon kii kooku puisque man li ma am nekk ak moom bëriwul puisque bi muy génn àdduna man fukki at ak juróom-benn laa am bon lu ma xam ci moom dañ ma ko wax wala bi mu laa tàggaa ni ma dégg ci moom mu wax bu dee ci wàllu maanaam ci wàllu diine kan moo ko jàngal alxuraan yooyu loolu xaw ma bu dee ci wàllu tubaab tamit masul doog baa ngu école te pourtant il parlait le français comme un français dafa am un doyen bu nekkoon yaraax il me disait que yow sa papa daf ma jaaxal parce que parle le français comme un français te pourtant masul toog ci baa école mais mais formation bi mu amoon puisque wax na ma puisque dafa nekkoon góor boo xam te dafa ñeme woon toom wax na ma ne man am naa dix qualification jàng naa dix métier mokkal yàlla dogal nag ci loolu yàlla dogal na def na première guerre mondiale quatorze bi mu ñu bisee nommé nañ ko chef de canton mais chef de canton bi moom ci boppam daf ma wax mu ne ma chef de canton bi dama ko mujj bàyyi lu mu nekk baat boo xam ne bi lu ma marque la ci moom ma ne ko papa lan moo tax nga bàyyi ñu ne ma ne daal chef de canton chef de canton nga bàyyi nga nga ne doo ko jël mu ne ma faal tubaab saay-saay la tubaab daf lay fekk sa diiri bokk def la buur pour que yow nga jàpp say mbokk daf leen baadoor mu nekk wax bu mat ba mu jógee nekk na traitant traitant mooy daal bu ñu doon ci jamono bi dañ daan import export mu daan jógee fii di dem yeneen réew bi di jënd marchandise bi indi marchandise côté boobu ni am na lenn lu ma ci marque boo xam ni par exemple à chaque fois bu imam daan firi alquran bu tuddee yonte yàlla yunus wala mu dem ci sira yonent bi sama xel day dem ci sama fas waaw li sama xel dem ci papa sama papa bu demee bu tuddee yonent yàlla Yunus dafa am un jour mu dem def comme voyage traitant mu dem dans les pays li ma li may xalaat mais peut-être que xëy na lay war a doon mu dem ci jamono booba jën fa ay marchandises yu bëree bëri luye daal teg ko ci bi ñu demee ba ci dugub bi ci dugub bi diggu ndox bi fekk booba am na feebar li ñuy wax njàmbal commencé ko dal mu am ay saag subni ci ci ci kanam bi ñooñu ne ko da wàcc suñu gaal mu ne déet de bu ñu teeree mu fayat leen double bi ñu ne ko da ngay wàcc suñu gaal commencé jël gaal kii ay bagage am di ko sànni ci kii ba bagage yëpp jeex mu futti mante bu ma soloon ak botte gi ma ne yëpp soobu ci biir géej ma nekk ci gi xaw ma penku xaw ma saw nee na yàlla moo ma sawee envoyé ma ma wax li li li wax ma wax nee na ma jékki-jékki mbonaatu géej mbonaatu géej mooy ñëw tungoo ma yóbbu ma ci benn île sàdd ma ma def fa ay fan awal ma nekk ba bind bés ma ne dee ak dund yëpp suñu borom moo koy rek dëgg man benn penk rek ne damay suuf comme doomu lébu la man na doon nee na mi ngi te mi ngi teere ci dëkku lébu yi ci dëkku dëkku séeréer yi li tax loolu moo tax sama xel dem ci yontu yàlla Yunus su dee ci yontu yàlla Seydina Seydina Muhammad te yes rek bi mu teeree ci séeréer yi dañ ko sax dañ ko dàq ak ay xaj ak ak boole ko ak ay ay ay xale yu ndaw ñu di ko sànni xeer parce que bi yaram yu yàqu na melokaanam rafetul ñu ñu ñu génne ko dëkk bi nee na dama raam ba demaat ci beneen dëkk benn soxna recevoir ma fa may ma ndox defal ma cere ak meew formation boobu mu amoon ak fi mu mujjee parce que yàlla dogal na ba mu nekk technicien supérieur aux travaux publics du Sénégal ba li ko andi fii yaraax mooy dañ ko waroon affecté Abidjan Samba Badiane Diop comme benn càmmiñ bi rek la amoon mu dem ci Nganalu Diouf mooy boobu temps moo nekkoon le maire de Sotis dem na ko benn càmmiñ rek la am bëgguma génn Sénégal loolu moo ko indi fii Senos boobu temps compagnie générale des eaux la wax ba ni mu jëlee retraite bi mu jëlee retraite nag il fut un grand agriculteur dafa jël retraite rek dem dem mbay wut ay tool yu dul jeex du xaaj moo tax ku ñaakaar ne ñun dañu nekk fii nekk par exemple nekk ay xale juddoo Ndakaaru di nooyantale sam papa daf ñu tàggat lépp loo xam ne ku nitu kaw dana ko def vacances dañ ko daan def lenn rek laa xam ne dafa ma ko def muy déet ak sàmm mais lépp lu ñuy def ci wàllu tool nit def na yàlla dogal nag yàlla mayoon ko mun am wërsëg bu tabaski jotee yàlla defoon na mu am camion ak benn wiis bu mu daan doxandoo camion bi la daan chargé euh, euh, légume ba mu fees bu tabaski jotee mu indi ko yaraat ñëpp ñëw di jël seen ndaw bu gàmmu jotee mu def ko yóbbu ko ci waaw nee na ma faal boole naa ñeent yoo xam ne yàlla may na ma ko yàlla may na ma gudd fan yàlla may na ma njaboot yàlla may na ma alal yàlla may na ma bay rek mu ne ma teg ñeent yooyu yomb mu dal ci doomu aadama kon góor gi Mor Fall loolu la mën a wax ci moom ba ni ko yàlla génnee atum xëy na peut am na yeneen ay anecdote yoo xam ne man nañ ko wax ci moom mais comme temps yi mayoo ko bi ci des mooy góor gi Serigne Touré nga xam ne moom itamit dañ ko rendre grand hommage góor gi Serigne Touré xëy na du ma mën wax tamit du ma du ma mën a bari ci moom parce que fii en trois laa ko xamee mais lii moom ñëpp mën nañ ko seedem ci moom ku bëgg jàkk ku bëgg alxuraan ku ku ku ku miin balaa wasifa ba ni mu tëddee mënatul ñëw ci juma ñëw ci jàkk gi saa yoo demee di ko seet ju alxuraan bi ngi ci loxoom jumaa yi yaraax képp wéetal na ko parce que chaque ajjuma balaa nit ñi ñëw parce que moom mooy wàcc kaamil bi kon kooku loolu laa mën a wax ci mooy mu nekk jullit àq yal na yàlla yeesal yërmande ci ñoom yal na yeesal ñëpp na ci ñoom mbay sëti maam Mor Fall dañ ma yónni nag puisque dama leen ko wax ma leen dañu am benn bourde bu ñuy def te nag dañ ko dañ ci rendre hommage seen maam ñoom ñoo ma jox ñu quatre-vingt mille la ñu ne def lañ ko xadd yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci dairatul mutahabina fillah nga ñaanal seen maam ñaanal mboolem ku nekkoon ci dëkk bi ak mboolem julli ci àddina bi bi jaay nga dinaa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh baat bi dañ neexu fas dama xaw wér bi waaye su ma fekkee jàmm fa wax te waxuma ci lu ngeen xamal ñëw jumte man jëmm fii boole wu ñu bon daan di service ngi toog ñu jox ñu baaloo euh, nga xam ni jox na ko kilifa yi. incha allah su ko defee nga doog a ñëw. sallallahu alayhi wa ah, ñaan yàlla allahuma yi fi wax yëpp yal ko yàlla nangu ci barke borom guddi gi lépp luñ fi ñaan yal na ko yàlla nangu te luñ fiy ñaanaat yal ko yàlla nangu képp ku fi ñëw yal yàlla faj aajo jàmm yal na sax ci Sénégal rawatina. an belleer rawatina yara rawatina Taba gi ñi koy ñaan yalla ci katanam ak baxam ci barkeent yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sant nak bu baax suñu borom subhanahu wa taala ci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi dini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin di julli ci Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam sallam xayru nanbiyaay di nak wax ni sant yalla dafa war doomu adama suñu ñaanee suñu borom mu may ñu dañ ko wara sant ndax mu dolli ñu parce que moko wax ta mom lepp lu mu wax lu am la ta da koy def ñu teg ci suñu bët daf ne adooni astajib lakum num ci tak wa in zakartum la azidannakum bon tey dañuy sant suñu borom subhaanahu wa taala ci biir sant suñu borom subhaanahu wa taala boobu nag ginnaaw bi ñu nuyoo mbooloo bi yëpp jiital ci imam bi teg ci borom dëkk bi ak notable yi ci nekk yëpp di góor di jigéen dañuy sant bu baax a baax a baax monsieur le maire Ahmed Dramé li tax ñu koy sant yàlla ñu ko sant ndax doomu aadama bu ngeen nekkee. ngay julit di gor bis mu def ay da fay yallu rafet jaadu jek nga ne ko def ci kanamu julit yëpp ci kanamu mbolom mi am nek yalla na yalla fay li tax ñuy wax nak lolu moy yalla mo ne bëgg na ngeen sant ma waye ku santul doomu adam bo ma santé man suñu borom duma saf ndax yent muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, bu waxe yalla wax ndax wa maa yantiqu xawaa lañ ko wax bon nak ñun fi ñu taxaw di yëkkati kaddu yi muy kaddu monsieur amé travé ak délégation bi mu andal yépp dafa am ay xéewal yo xamni da ko yëkkati yag na ko def nak ci dëkk bi ñu teg ci suñu bëtt mo tax ñu saj ko wax mu defaat ko tay nak ci bis yu mel ni da koy tambati def mu defaat ko tay gi ah xéewal yi nak mi ngi ni tégué di ay décoration mu jox ko suñuy kilifa jiital ci imam Omar Diallo teg ci imam Muniru Ñang teg ci suñu kilifa ci turu muy imam di délégué de quartier mais mu jox ci turu délégué de quartier jox oustaz Mbay Coor di responsable di imam fii ci jumaa ji bon Ahmed bu defee lu noonu yëkkatiwaat enveloppe bii mu nekk xaalis bu bari ni ngeen gisee enveloppe bii wax fa dëgg yàlla du ñu lim bi mais da koo teg ci la ko diw ñu daayira bi muy mbay coro ay euro la du CFA bon bari na di bëgg ñëpp di kontaan ci ñëpp di sant yàlla bu baax a baax a baax bi am nag bu la gërëmee danoo def lu ñu war parce que li nga yor nit yor na ko démb ak bërki démb ba tey jii te deful ni ngay defee nii bon boo ko defee nag dañ koy wax te yàlla tax soo ma taxawee di wax nag casquette bi ñuy njëkk a gis mooy casquette politique déedéet lii dafa romb cadre politique cadre lu nit ku dëkk ci dëkk juddoo ci dëkk ba yaroo fa màggee fa yàlla dénk ko teraanga muy politique nag waaye di def politique social bon nag nit bu defee lu baax bu jullit di teewee dañ koy wax bon amee jërëjëf yàlla na yàlla fay ci barkeent yàlla Muhammad sallallahu alayhi li nga bëgg yaa ko am yaa ko xam yal na la ko yàlla defal damay wax nag chaque jour doomu aadama fu mu jaar mu metti mu làmb karawam xool mu doon karaw gu ñuul ñeen yàlla gudd fan ndëkkee lu metti mujjee lu neex moo tax kon mujj gi yàlla neex li nga yóotu yàlla na la ko yàlla defal parce que yàlla xéewalam yëpp joxu ko kenn wala benn askan wala santale ko kenn dana daal samay jaama ngi nii ku ci nekk li nga xamante ne nii dogal naa ko te mu gën ci yow yal na la ko yàlla defal ci gox bi di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di bu baax a baax a baax nag ci kàddu yi bii defe naa ni bu fekkee ni mën nañ ko jox imam Omar Diallo moom ndeysaan ku ko jox yëre dimbali nga ko ndax da ko doyal ko na laa may dix mille de téye musuwaar la ko jox xaalis moom waaw imam Muniru ndeysaan kii ñun moom la ñuy wooyee ci jàkka ji xam nga suñu jàkka ji jumaa ji fii dañu am ay sirno ñoom ñu ko xam yow la gars yi di wooyee Jaafar <laughs> kii euh, mi ngi nii moom it sirno gars yi xamuñu ko moom la ñuy wooyee Google ku bëri xam-xam la délégué de quartier bu bu calme la ku dal la ku baax la waaw ku maandu la mm-hmm. man li may wax xam nañ ci dara waa kii ñu ngi koy wax mooy coro moom am na tur mais dañ ci def kot waaw moo tax yi sama rakk quoi moo tax du ko wax waaw imam Mor Niang bi daal ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm El di Yoro seen taxawaay ci jumaa ji man bu ma taxawee fii dama koy yokk far force lu ma gis bu ma ko seedewul bu ma tëddee bu ma nelawee du ma Yoro sa taxawaay fii ci dëkk bi. ak sa taxawaay ci jumaa ji man Mamadou Niang maa ne yàlla na la yàlla fay li ma nii imam d'accord na ci de te xam na ko bu baax voilà bay coro ñii nekk ci jumaa ji xam nañ ci dara yoro amul lu muy tak xam lu ci jumaa ji fan yële dama ne ko yoro mu naa ma ko bul laajati facture mu ne ma ok amul benn problème mu ma fii rek ma romb romb lu mu ne mbay ci ban numéro laa koy def bon yàlla la yàlla fay yàlla moom kum la tafay du liggéey loolu bëri xaalis taxul ñu def lu baax am na bëri xaalis taxul ñu def lu baax yàlla daa ko joxe lim la jox daf la ko jox pour nga bokkoog jàmm yàlla ku muy jox pour yow kese boo añee suba da ngay lijjanti reer waaye yàlla am na loo xam ne bu la ko joxee bagaan la daf na la pour nga séddal yàlla ne kum séddaloo ba bañ ku la jàppee rek sa nit dañoo d'accord ak moom ci lim ñu wax lu leer nañ. daf ñu ne su allah tub azu xurballah wa rabbi la tub azunna suma bi ma amintum wa dalika ala la yasir léegi nag lan moo des léegi fa aminu billahi wa rasulihi wa nuuri lazi anzalna wallahu bima taxmaluna xabiru Ousmane jërëjëf waaw man noonu ñeme ma yëpp dawati yëpp daal ah. li ñuy toog fii yëpp wàcc di wax yëpp jolof nii nii samay maam jéegul ba sama benn maam samay mbokk gi dana toog barki yàlla surtout maam Abdou Aziz Sy Dabakh surtout Serigne Fallou mooy Sénégal su ko defee ah, tableau bi dañu bëgg président euh, Yoro Fall mu joxal ñu ko Ahmed Tamsir Dramé daayira bi ñoom ñoo ko jox am kontaan bu baax ak mbégte ci moom macha allah. jongan